ngeen jot da ngeen di abonné fii si Tawfekh mën a jot moo leen vidéo boo xam wax ni dañuy defar fii ñaari enfi amphi bu ci nekk dafay nekk cent place amphi bu ne coût de manœuvre bi dañ koo estimé woon ci 400 millions kon ñaari dafay mel ni dafay nekk 800 millions. ci engagement boobu ci lañ nekkoon di ci dox di ci liggéey ba tey ñu yokk ci pose première pierre bi durée bi nga xamante ne moom lañ ko appal ak suñu conseiller technique yeeg ak entrepreneur beeg ingénieur bi yëpp dañuy wax une durée de dix mois maximum waaw parce que waa Royet dañu nekk benn regroupement boo xamante ni dafa lëkkalee commerçant yi nga xamante ni si ñoo nekk ci Touba et environ comme ñun tamit dañu nekk Touba dëkk tuubaa dëkk ak Serigne Touba lii rek nekkul suñu objectif ndaxte bu lii eggee incha allah dañuy envisager maanaam nekkaat ci yeneen liggéey yoo xamante ni maanaam dañ ciy jot ndigal ci sëñ bi incha allah. commerçant yi de dañoo yéex a ci liggéey bi man du ma jàpp loolu c'était organisation la ak méthode. parce que tamit lu toy ni ñaari amphi yoo xamante ni 800 millions moo koy defar mënoo tëb tëb benn jour rek du jour au lendemain rek nga taxaw ci c'était une longue processus boo xamante ni ñi ci doon dox di ci xam li ñu doon dox dans le silence amul woon presse amul dara da jàpp ni peut-être yi dañoo yéex a jóg wala genre comme ça mais depuis des mois ñi ngi ci noppaluwuñ guddi noppaluwuñ bëccëg ànd ak le président Moussa Mbaye ak membre comité pilotage bi fu si nekk dem nañ ci ay réunion dem nañ ci waxtaan ceeg entreprise yi war a euh, entreprise yi a waxtaanal ba dem ba tànn entreprise bi nga xamante ne moom lañ bëgg a liggéeyal kon loolu dafa nekk procédure boo xamante ni dafa